wala ma ñaan leen ab liggéey tolloog ñoom wàccuwaay maa ngi leen di ñaan jëm jii di Sidi Lamine Niass te génn àddina jëm ca boromam ñu war ko denc tey jii ci ajjuma ji nañu bàyyi xel bu baax ne ku bëggoon Serigne Touba la te noonu benn nattuwaay rek lañ am muy Serigne daana wax ci moom lu baax lool di wax ci moom lu rafet lool ci barab yu wuute ak waxtaan yu wuute yoo xam ne ku ne mën na koo seere kon nag kenn ku ne ci noonu na ko beral loxo tey ku mën suuratul mulki nga jàngal ko ko jaawatullaha xasida jaawatullaha nga jàngal ko ko ku mën ñeent fukki lixlaas lixlaas bu ne ànd ak bisimilah rahmaan rahim nga jàngal ko ko am na julli gu ñuy defal ko faatu te bari ngeen lool sëñ son bu def na ko ci téere bi koko man nga jullil ko loolu lépp ana lu tax suñ mbokkum jullite sun mbokkum dëkkandoo la waaye ne ki ñu amul lu dul moom muy seexul xadim daf ko bëggoon di wax ci moom lu rafet loolu tax na tey jii nag nañ ko fàttaliku bu baax ñaanal ko bu baax a baax a baax a baax yàlla na ko yàlla jéggal te yërëm ko te wanale ko ak sallallahu alayhi wa sallam ak ñu baax ñépp